ki kenn dootul présenté ci biir réew mi ak bitim réew kan euh, Serigne El Hadji Mamadou Cissé borom Wadduha borom xaar bu gaaw bi di la xoolal foo mënti nekk rek gis la ci lu gaaw. jëkkër ak jabar dëkkee ay problème yu dul jeex te xamoo sax fan lay jóge ak lan moo ko waral wala nga bëgg ci garab yu baax yii nga xam ne moom lay joxe yi nga xam ne dina la jàppale lool ci ngóora ba nga yëg sa bopp na mu mën la jàppale lool ci ndoxum siti ba mu deñ ba mu set wecc. dawal gaaw lycée lay bu Géejawaay mën a jàkkaarloog borom Wadduha numéro téléphone bi 77 617 70 44 76 310 95 60. ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadduha.org. borom wadduha njariñ la ci dëkk bi. am na ñoo xam ne boo leen fekkee fii tey doo leen laaj lan lañ fi def Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi ziar gars yi maa ngi ziare bu baax a baax a di kontaan trop aussi ci teew fii ci siège Arcos ci bes bi nga xamante si xale yi dañ ko jël pour sargale ko Leyti fan mu nekk euh, loo si lu lu lu rafet la lu ñu lu la it nak ndax euh, ñun artistes yi moom kenn koo ci teral rek ñun ñëpp nga teral te nag soo teralee ki nga si nak kooku nag moom moo jar a teral ci boppam teral nga ñëpp te ki ñuy sargal tey kooku moom moo jar a sargal mooy Leyti Fall parce que mën naa ni mën ni taat man mën wax Nani ne Fall moi tayat. parce que il a pu faire beaucoup de choses yo xamante ni si ci biir liggéey bi ñu kenn dul natable liggéey bi mi liggéey kenn du ko natable donc ñu sargal ko dafa rafet dafa jaadu mbir la moo xamante ne si dafa jaadu bañ ko waree def sax du tey yàgg na parce que barke dem damay wax ak Adama Diarra manako ne buñ doon gis ñuy euh, ñuy sargal nit dañuy bayyi ba mu màgget wala mu bayyi ko fi mais yeen Leyti Fall fimu mu ci digg dolem ngeen koy sargale mais lolu moy yoon loolu moom mooy yoon xam nga nit bu fekkee ne dafa jëf ci sa kanam loo mën a teg loxo da nga koy xamal ni lii nga jëf ci sama kanam yëg naa ko te li ngay jëf baax na li ngay jëf baax na nag mooy lii ñu koy defal tey sargal ko ba Sénégal wërngal këpp àdduna wërngal këpp xam ni sargal nañ Leyti Fall fii ci Pikine ci biir Arcos banlieue fi nga xamante ne si fii la nekk di liggéey yor fi ay xale yoo xamante ni si ay xale yu xamul dara ci théâtre lañ bëgg ko mu jël leen moom personne di def ci ñoom tayaat te te nag moom war naa mën a jàngale tayaat war naa mën a def ci xale tayaat ndax tarbiyu na ko jàng na ko ba mu mokk xam nag ñun suñu réew mi dañoo baaxoo di di jox kàddu ñi nga xamante ne war waruñoo wax sama classe bi ñun noo wax sax si théâtre mais ku ci mel ni layti ak euh, ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ŋànk théâtre Sénégal bi gérer arcos yi di liggéey liggéey bu rëy rëy rawatina nag moom ñooñu ñoo war a wax si théâtre bi. donc moom bu yoree xale yi di def ci ñoom lu muy def ci ñoom ñu di ko gis nag ah sargal ko dafay yoon bi muy teew nga koy sargal balaa muy dem fen nga koy wan li ngay def yëg nañ ko te d'accord nañ ci rafetlu nañ ko jërëjëf. mais comme ni ma koy waxee yéen ñi nga xam ne fekk ngeen jamonoy théâtre baas ba téléfilm nga xam ne tey formé ngeen ay xale yoo xamante ne bi ñoo téye seen médiatique Sénégal bi te màggatagoo leen loolu nan ngeen koy dundee. waaw xam nga loolu loolu loolu loolu plaisir loolu plaisir bu rëy a rëy rëy la xam-xam yàlla suñu borom bu amee lu mu la jox joxu la la ko dala koo dénk la mu la dénk nag da koy téye ab après da koy jël jox ko keneen wala mu suul la ci comprends loolu nga xam nag balaa ñu laa suul war ngaa fexe ba am ci ñenn ñoo ko def ci réew mi ba bu ëllëgee boo dëddoo la nga yoroon am keneen ku fi nekk ko yor loolu mooy li lay nekk di def ak gars yi eh, xale yi moom milieu bi nga xam ne si moom la ñu nekk milieu bi milieu bu yaatu la. milieu bu milieu bu yaatu dënn la boo xoolee actuellement Sénégal amul maanaam corps bu bàyyiwul liggéeyam rek ñëw ci théâtre bi amut du journaliste du mbër du du du jaaykatu kafe du présentatrice du kenn képp koo fi gis muy liggéey rek bàyyi na liggéeyam ñëw ci suñu théâtre bi fekk ñu si. am na ku ne euh, ji mannequin yi un mois la ñuy def formation pour réalisateur yi gis leen. mais mais bien sûr parce que liggéey bi moo barkeel et que liggéey la boo xamante ne si xatalul kenn ku ñëw. la nga Il wara a la nga a def ñu bala nga def ko te du métier parce que kenn ku sont ci ñun chaque jour ngay bind soixante ans keneen bind te bind du jeex donc kenn ku sont ci ñun mën naa liggéey ci métier bi te du xatal moromam ba nangulante nangulante man dama président il est il il est généreux dafa labir ci li nga xamantene ci si lay def parce que métier la bo xamantene ci si métier bu noble la mennum théâtre mom ngay def dugg fep nek imam tay suba nga nek président gannaaw suba nga nek commissaire gannaaw suba nga nek talib gannaaw suba nga nek théâtre kessé moma lool bir biir famille bu nek nga dugg fa théâtre moma lool wa lool ku koy jël diko def ci ci ci bir ay ci bir xelu xale kooku sargal ko warul mais lé dañ koy sargal mom né chaque année ñu sargal ko chaque année jour bi dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy tëj comme ni ñu tëjee constitution Sénégal noonu la ñu tëjee jour bi ba saa yu jotee rek ñu defal ko ko incha allah. incha allah mais Babacar dañ lay laaj boo gisee théâtre dem ak ay théâtre tey boo xoolee yaa ngi gis gars yi tey di blâmer femme yi def lu di n'importe quoi ay di simi seen yére xale di leen seetaan ak jamono jii nii yow loo ciy wax en tant que euh, yow mi ne ci aar bi. li nga xam ne si moom laa ciy wax simi sa yére rafetul fenn quoi qu'on puisse dire taxaw su meeku dung ci télé jaaduwul loolu duma ko cautionné producteur wala scénariste wala réalisateur bu koy defloo nit it koy deflo lo xamante ne si boo bu don sa jabara do ko defloo parce que amul kenn ko ci japp jabaram simeekuloo loko wala ko ci japp domam simeekuloo loko ci télé bi. kon tay loy wax xalé yi diko def. xalé yi diko def li nga xamante si moom mom ñoom koy waral mom moy ñenn ñi ñenn ñi parce que théâtre aussi dañ ko wara jang jàng théâtre métier la du lo xamante si rek da nga ñor tab bi déedéet da koy koy tarbi da ngay dem ci groupe bi ñu formé la

parce que ki nga xamanteni ci dafa tok di sétane ak domam ak jabaram ak papam ak yaayam ak mamam tok di sétane film wala muy sétane ben long métrage wala muy sétane ben série war war ko sétane mom yag mom ci boppam fim tok mo am kersa lolou waru ko dal war naa mën a projet bi ba mu jeex tak te du am lenn lu ko ci déranger mom ak njabotam ak ay param yep suñu paré tok di di débattre ci liñ doon seetaan ñun lolou lañ xamone quoi so xolé bu ba bon ay ñoom eh, groupe daaray koocu soleil levant macha allah dañuy def lolu suma limé damay jum troupe jamm de Pikine bu grand ma Mbaye ma jaga ñom ñom layti ka Qatar gaay da no tek ay pièces yo xam boko sétané fo jaar bo paré jàngat fo jaar bo paré jël ci lo xamantene ci bu suba dina la jarign wala nga naron def dara sétane film bi so xoyé bakku lolu théâtre moko ko mën mais là pëccëxoo bi bari na bari way bo ne ci ku juk def lu la neex ku juk ut sa caméra dem film lu la neex dawal ci télé wala nga dawal ci ci internet bi loolu mo motax aussi mais loolu inshallah rabbi liga ñing ci liggéey liggéey bo xam dina juk dina ci juk dina dañ dina dañ parce que xalé ñi ngi comprendre ni sen ay cieur kenn waru ko ñoo comprendre ni image dafa wara rafat, rafet te image day yag mën nga filmer ben film tay nga am 12 ans nga dem ba am 75 ans ñu la film bi tegal lako sa dom tok sa se tok nga def yaramu nen koku ding ko tere yaramu nen doo ko donc yooyu c'est à éviter. Bienvenue dans votre boutique Touba Darou boutique bi ñu jagleel xale yi lépp loo bëgg ci ay dàll ak façon bu la mënti neex ci Touba Darou Minam la fekk baax ay dàll yu raar dàll yoo xamne ne di nga wër bay bëgg dé fi ci Dakar te doo ko mën am ah mané ouverture école xalé yi dañoo wara a sañse bu baax sol dàll yu rafet yo xamne Touba Darou Minam lay jóge Touba Darou Minam moo fiy jaay dalu xalé yu rafet de kon nak yeen ñi nga xam ne yéenay titeewu xale yi daw si leen gaaw Pikine centre commercial Touba marché Zeng en face garage Kalando kanting numéro 10 di nga fa fekk waa ju baax ñu nan ko Modou Lo numéro téléphone bi 78 484 98 23 78 484 98 23

ma ko amul ah, ma kuñ yar ci théâtre nga jaar ci formation du def liñu wax te mm-hmm. soxna ba dóor ci suñu kanam la defee formation lolu du deug deug la te bimu koy wax xamagul lu xew man ma jangat ci lolu mu wax ne arko yi fay dugal ci xalé jigen ñom seen bop bu kenn ki nekké ci benen rôle kenn ki sax day bëgg mu réussir ko mm-hmm. mais arko yi lolu mooy seen liggéey arko yi jangal xalé yi mooy seen liggéey mais su fekkon dañ ko créer juste pour ñun ñu ñëw tok waxtaan après ko na dem kan kan kenn du kenn du créer arko yi dañ ko créer pour nit ñi nga xam dañu bëgg théâtre ñu ñëw formé wu ay metteurs en scène dañuy jóge fu nek ci aduna bi di ñew fi ci Arco di jël xalé yi di leen former ba paré di leen fay jël la def ak yow ay fan yu bari ci former la ci yow ci sa ci sa métier ba paré fay la fi ci bir Arco loolu dafi am de partout nak la wax de partout la ñuy jóge metteur en scène de partout di leen former ci taat di leen former ci technique di leen former ci cadrage di leen former ci lépp durant formation bi dañ lay fay.

ay ay nit yu jàng école des beaux ba ni ar wala ñu yàlla def ci ñoom lu ko neex parce que suñu borom mooy maye. moom mooy xool lu ko neex mu def ko ci ki ko neex li yàlla def ci Leyti Fall te la ko def. defu ko ci Babacar defu ko ci keneen ak keneen pourtant mënoon na ko def mais defu ko lan moo tax mu def ko moom moo ko xam li tax nag mu def ko boo ko bëggee xam da ngay nangu parce que ki nangu day jël cëru ki bañ maxana bu yàggee ci bopp oyo fa tax ay nit boo leen jiitee yërëm leen. di leen xamal li nga xam moom la lañ war a xam di ko teg ci code ak temps di ko teg ci yoon di ko teg ci dëgg di ko teg ci jom ak fulla di wax xale yi woddu leen ñu jigéen ñi ñu góor ñi am leen jom respecté leen seen ndey yi ak seen baay yi théâtre liggéey la bu ngeen demee defi ko bu ngeen paree ñibbi leen seen kër téye seen bopp respecté seen bopp loolu ku la koy wax ku la bëgg la kooku nag tey moom la ñuy à jamais léegi nag yow duñu duñu la bàyyi mukk te waxoon tuuti ci série Mariama dafa am benn nekk Mar Seng mu ne waaw kii li may romb lépp xaw ma woon ne chrétien la <laughs> xam nga série Mariama Mariama personnage la rek. Antoine Antoine bon bon pour ma interpréter personnage bobu nekhon na ma trop parce que xam nga ñun Sénégal dañu baxo jaxaso te ñun ak suñu mbokk chrétien yi ño bokk lepp dañ ñuy ñaanal ñu leen di ñaanal tay buñu amé nakar dañ fay tew ñom buñu amé nakar ñun dañ cey tew su tabaski jotee gis nga ni mi démé bu gis nga ni mi démé pak bu jotee gis nga ni mi démé donc ñun ak ñom ñoo bokk lepp lolou moo tax personnage boobu bi ñu ma ko proposé ma parce que je l'ai senti dama ci yëg dama ci yëgoon sama bop pour interpréter ko ba ñom ñu gis ci sen bop ni Babacar mbay borsami ab julit la mais personnage chrétien la la interprété tay pour xamal leen ni théâtre bi amul yooyu amul yooyu amul limite li nga xamantani ci si fi xew mom la wara wax li fi ñaaw dañ ko wara wone ni li da ñaaw li fi rafet ñu woné ko ni li da rafet pour que pour que nit ñi xamné lu ñaaw kenn waru ko def lu rafet rek lañu wara def ñi bax dañ leen wara wax ni yeen da ñi bon ñu xamal leen ni ah yeen bono leen waye yeen a ngi tilim te tilim mom dañ koy rag buñ ko ragé mu set doomu adama bu né buñ la ragé rek nga set donc dénoncé ko pour que nit ñi xam ni ñu day jangalé rek ñu lu bon kenn dañuy yété pour nit ñi xam ni nit dafa wara nité té te nak

Vous fàtte vous la ou pour notification pour la vidéo